rencontre bi nak dañ ko amal ci sakoutefu directeur Orange euh, Sonatel bi nga xamanteni gannaaw bi ñu lancé campagne mardi wu boycott yi ak lettre de protestation yi nga xamanteni déposer nañ ko mu bind bataxal ne ni bëggoon na dajé ñun yi nga xamanteni ñu ngi xex ci mbir mi donc loolu mo waralon suñuy tank tay euh, liñu wax nak moy liñu doon wax ba tay moy Orange neneng nañ leen ni ah yende depuis le 22 juillet tarif yi ngeen indi ci mbirum Illimix yi yéen rek yéen yéen rek ci gis wañi te waye sénégalais yi ci seni poche li ñuy sentir moy dafa am yokkute malgré conférence de presse bi ngeen am pour expliquer ko sénégalais yi yokkute lañu sentir ci seni poche malgré directeur généralu ARTP bu ñew woné ay tarif yi nga xamanteni mom dafa japp ni da ngeen ko corriger mu mengok bëgg-bëggu sénégalais yi ba tay sénégalais yi dañ japp ni yëf yi soppiwul. Nous, jàpp ni nous ñu ne directeur ñun li ñu foog ni loolu fait. saafaral mbir yi te ñu jeexal lii ñu ci tarif yu en vigueur avant le 22 juillet nous indiwaat ko tarif yi ngeen indi yu nous yi ñu garder ko jox sénégalais bi le choix de pouvoir choisir entre 1900 avant le 22 juillet ak 2200 bi nga xamante ni moom moo muy lu donc nous nañ ni jàpp nañ ni euh, li ñu leen wax et que nous nañ trouver point de convergence et que nous ak ay services pour que dans les mois à venir nous puissions mun matérialiser pour que sénégalais bu nekk nga am choix wu tarif euh, tarifu 1900 avant 22 juillet ou jël tarif yu bees yi nga xamante proposer. malheureusement man que nous ressentons, ressentir que dafa mel des euh, li qui yomb mooy Sonatel des gën yomb ko ARTP bi nga xamante ni suñu autorité bi ñu citoyens Sonatel ginnaaw bi ñu déposé lettre de protestation yi directeur Sonatel daf ñu bind bataaxal pour ne ni buggoon na dajeek ñun pour que ñu wax ci mbir mi donc moom xaarut sax ñun ñu demandé audience directeur ARTP nag man mi en personne demandé naa officiellement une audience auprès de son assistante boobu ba tey maa ngi xaar pour que ñu confirmer ñu benn date pour que ñu mën a dajeek moom parce que li gënoon ci ñun ñun li ñu gënoon bëgg mooy avant ñuy ñëw nous ñu daje ak ARTP mais malheureusement ça n'a pas été le cas tay ñëw nañu li lañ fi jëlé ci Orange et il faut travailler à ce que lolu Orange mu dëggal ko le plus vite possible. ñu baña dormir sur nos lauriers comme on dit li ni amna li fi juggé amna li ñu wax ñu dégg ko légui ñun dañu wara dox à ce que nous mu matérialiser wu. fi muy ñëkke moy dinañu daje directeur généralu ARTP sakku nañu dajé bobu amaguñu réponse de sa part. mais bu ñu dajeek moom li ñu war a def mooy fexe ba moom aussi autorité bi mu jouer son rôle pour que li fi jóge comme ay engagement yi fi Orange annoncé que ñu mun ko matérialiser lu mu gën a gaaw ci fan yi di ñëw incha allah bu ñu jógee ci waxtaan woowu dinañ waat ak euh, journalistes yi pour wax leen ban stratégie la ñu teg pour que li fi jóge ñu fexe ba mu doon li nga xamante ni day doon lu dëggu day li nga matérialiser et au grand bénéfice des consommateurs yi nga wax ji sénégalais yi choisir d'être chez Orange que Orange mu respecter que Orange profit bénéfice yi muy une bonne partie di en France fi lay et que profit respect. Et maintenant il faut que citoyens ñu rester mobilisés il faut que sénégalais pour l'instant il faut continuer à se battre et à mettre la pression qu'il faut et que ARTP aussi nous pousse à ce qu'il fasse son travail parce que l'OL aussi ARTP agent marketing Orange ARTP est pour que nous protéger les Sénégalais de l'appétit vorace de certaines organisations qui nga fait dans du commercial